jaaxle gi ngeen doon am ci seen wàllu wér-gu-yaram jeex ku ko fi jëlee dina faar dina farm dip entreprise internationale buy jëmmal ak a doole ka taxawu seen ëllëg dina farm di leen indil ay produits yu gën ci seen yaram ak ci seen wér-gu-yaram dafa boole li gën ci wàllu wér-gu-yaram ci réew mi ak ci bitim réew jagle leen ko dina farm am nañu ay produits yoo xam ne dañuy raxas seen deret ba mu set wecc lépp ngir seen wàllu wér-gu-yaram ay produits yoo xam ne ku koy jëfandikoo doo gaaw màggat foo tollu da ngay ànd ko wér akuk cawarte ñi amee feebaru xel dina farm am na ci ñoom pexe wala nga doon góor ba noppi néew kàttan wàllu sëy am nañ ci yow pexe bu alimentaire bu jaar yoon emploi bi leen neex Dina Farm am na produit ya produit cosmétique yi seen yaram gën a soxla yi gën seen yaram jàngoro yi gën sonal nit ñi yu ci mel ne diabète hémorroïdes asthme tension prostate ulcère sinusite AVC paralysie yax yu metti di ruux di arthrose nerf sciatique ak yeneen i feebar ci gàttal képp ku bëgg ak wér ci sa yaram képp ku bëgg a defar sa yaram Dina Farm moo yor solution. bi salaamaaleykum askanu Kaarang mën la Mame Diarra Gueye membre Dina Femme International. asalaamaaleykum waa mbokki Kaaràn man la Fatou Gueye. salaamaaleykum waa mbokk Kaaràn man la Awa Diouf membre Dina Femme. Ah, en fait Dina Femme benn société la Dina Femme benn société la internationale société malaisienne la boo xam ne dañu ko créé en 1981 par monsieur Oy mu ngi plus de 155 pays. mu ngi cinq pays en Afrique li ki ko fi indi mooy benn daam bu tudd madame Esther ougandaise la dafa demoon Canada di liggéey businessman la mu dem foofu di liggéey femme d'affaires mu dem foofu di liggéey léegi moom doomam asthmatique la woon te en général ñun fii Afrique dañ naan asthme du wér mais ba mu demee foofu léegi am ku ko expliqué wax ko ne am na benn société boo xam ne société bu baax la ay produit bio moom la ñuy kii dañuy faj asthme feebar yépp la ñuy faj mu jël fa yóbbu fa doomam ñu jox ko benn produit bu tudd bii pollen asthme bi wér moom mu ne lu baax lii pourquoi pas moom du ko indi Afrique comme ça ñun nit ñu ñuul ñi ñu siy jëriñu mu indi ko Ouganda en 2005. cinq non Dina Farm am na plus de 800 produits feebar yëpp la ñuy faj sauf hernie ak appendicite boo déggee hernie loolu mooy feebar bi nga xam ne moom dafa laaj opération. opérer rek lañ dul def mais feebar yëpp yëpp yëpp la ñuy faj moo xam tension bi nga xam ne moom moo ñu sonal tey jabet ulcère ballonnement hémorroïde impuissance yëpp la ñuy faj. en fait ñun waa Dina Farm dañuy dem village bu nekk partout au Sénégal dañuy voyager di def ay consultation foo xam ne euh, médecine bi eggu fa. dañ fay dem def ay consultation consultation benn machine lañu ñu indi na machine bi soo taxawee sa filiation bi la dugal lépp bépp feebar boo xam dafa nekk sa biir yaram bi da koy génnee bindal pour prescrire la ay garab nga jënd ko te consultation c'est à 1000 francs waaw au fait euh, buñ la bindalee ordonnance bi ba pare ñun ñoo la koy jaay buñ la ko jaayee itam dañ lay jox euh, numéro téléphone bi nga xam ne suñu numéro lay doon pour ñu def suivi patient buñ jëlee buñ la joxee suñu sa numéro tam dañuy jëlaale dañ lay joxaale ñun buñ la joxee suñu numéro dañuy jëlaale yow sa numéro ndax buñ toogee tam dañ lay woo di lay nemmeeku laaj la faj bi fu mu toll loo gis ci garab yi yooyu yëpp dañ koy def ñun daan noonu la ñuy liggéeyee. waa léegi comme instant bi ñu nekk Kaarang ku ñu fi soxla ñu ngi nekk ci centre bi jàkkaarloog garage bi ah léegi ñun euh, comme feebar yi nga xam ne moom la Dina Farm di faj muy mel ni diabète tension hémorroïde ulcère estomac fatiguement général cancer euh, faiblesse sexuelle maanaam góor gu neew kàttan ak jigéen bi nga xam ne dafa taxaw lu yàgg waa wala jigéen ku am poids bëgg a wàcc bëgg a jeex wala ku jeex trop bëgg am yaram yooyu yëpp dinaa farme da koy faj ndax comme garab yi niñ ko waxee rek ay complément alimentaire la day mottali lépp li nga xam ne moom la ñuy lekk. li ma ci bëgg a dolli mooy comme jigéen ñi ñi nga xam dañoo am fibrome wala kyste ñun comme hôpital soo demee dañ naan dañ koy opéré mais ñun duñ ko opéré eh, benn produit boo xam ne bi tudd maxaraane lañ lay jox boobu da koy seeyil dootul ñëwati mais ñun suñu garab suñu la ko joxee dootul ñëwati incha allah. waa ñun dañu bëgg askanu Karang bi yëpp ñu ñëw parce que ñun Dina Farm International ñun suñu aajo nekkul pour jug jaay nit suñuy produit wala dara mais ñun dañoo bëgg a jóg pour sensibiliser population yi. xamal nit ñi conseiller leen ci seen alimentation moytu loo leen lu bari loo xam ne tey moo ñu indil feebar yu bari ndax problème mu tension bu bari bi yëpp alimentation bu baaxul kese moo koy indi problème mu diabète bu bari bi tamit loolu moo koy indi moo tax ñu bëgg ñoom ñëpp ñu déplacé wu ñëw bu ñu ñëwee dinañ leen jox ay numéro téléphone foofu léegi nii après dinañ leen jox numéro téléphone yi comme tam mais ñu ñëw consulter wu 1000 francs rek machine bi mën nañ ko ne turu machine mais du machine guide la sa filiation yi nga siy dugal mu lépp loo xam ne mu ngi sa yaram mu wax la ko nag askanu kaarang bi yëpp ñëw parce que nit ku nekk da nga war a dem du saytu sa wér gu yaram xam li nga xam ne moom moo nekk ci biir te produit yi 100 pour cent bio la amul effet secondaire day faj cause maladie yi moom li nga xam ne moo lay indil feebar bi sa biir yaram moom loolu lay éliminer. non amul âge parce que produit bio la te produit bio même liir bi nga xam ne moo juddu mën na ko jël parce que c'est naturel. amul effet secondaire amul dara moo tax liir bi nga xam ne dafa juddu tey mën na ko jël màgget bi nga xam ne dem na tey ba nekk mag ba nga xam ne dara mënatu ko sax mën na ko jël parce que da koy renforcer da koy yokk force da koy yokk doole kàttan ba nga xam ne coono bi mu waroon daj ak métit yi nga xam ne moom la yaramam di war a daj ndax mag rek feebar la yooyu yëpp day tax yàlla da si def jàmm parce que Dina Farm International dafa nekk société boo xam ne société bu valable la c'est reconnu par Sénégal fépp foo xam ne fu ñu dem dinañ dem ci kilifa yi jox leen seen gëdd parce que dëkk jàmburkat boo fay dugg boo ñëwee da ngay tàggu borom dëkk ba yëgal ko xam ka li nga xam ne loolu nga kenn di parce que lu baax kenn du ko nëbb te yaakaar naa ne dinaa farm yorul loo xam ne dañu koy nëbb lépp lu mu yor parce que koo dem jàkkaarloo moom expliqué bu ko xoolee rek dina ci gis boppam ba ñu ñëwee dem nañ ci autorités yi nga xam ne ñoo fi nekk dem nañ ci monsieur le maire mu accueillir ñu macha allah dalal ñu dalal ñu ak jàmm dem nañ tamit douane ba wax ak ñoom dem nañ ci police ba dem nañ gendarmerie macha allah fépp dem nañ fa dem nañ ci hôpital bi tamit ñu dalal ñu macha allah dem nañ fépp wax ak ñoom ñun daal li ñuy ñaan waa askanu kaarang bi rek mooy bu subaa. à 9 ñoom ñëpp ñoo ñu ñëw ñoo ngi fii ba une semaine incha allah lépp loo xam ne moo jaaxal nit ci feebar nga daw ba sonn ci hôpital yi dema dema dema ba jaaxle moo xam mu nga yor jabet bii ñu nga xam ne dañu naan du wër ñun dañ koy faj ba mu wér. waaw léegi centre bi mooy centre bi nekk ci kaw tali bi. centre waaw centre des jeunes bi nekk en face garage bi foofu lañu nekk incha allah. suñu kàddu gu mujj mooy li ñuy wax daal mooy dañuy gërëm autorité yi nga xam ne ñoom ñoo ñu dalal jàmm. di ñaan yàlla lépp li nga xam ne dañu ko sumb yàlla eggaliñ ko si ñu dugg si bisimilahi rahmaani rahim eggali ko si alhamdulilahi rabil alamin di ñaan askaru kaarang yëpp ak li ko wér ñu ñëw incha allah 1000 francs kese ngay joxe ñu wax la li nga xam ne moo nekk sa yaram bi yëpp bindal la ordonnance produit yaa ngi fi ay produit yu baax la lépp loo xam ne rek mën nga ko loolu nga yor rek wala loolu nga àttan rek incha allah dina parce que produit Dina ma benn ba ca gën ndaw kese kese kese boo ko jëlee rek dina la fajal sa jàngoro wala mu am lu mu def ci yow ñu ngi jaajëfal ñëpp. jaaxle gi ngeen doon am ci seen wàll wér-gu-yaram jeex na ku ko fi jëlee Dina Farma. dina farm dib entreprise internationale buy jëmmal ak a doole ka taxawu seen ëllëg dina farm di leen indil ay produits yu gën ci seen yaram ak ci seen wér-gu-yaram dafa boole li gën ci wàllu wér-gu-yaram ci réew mi ak ci bitim réew jagle leen ko dina farm am nañu ay produits yoo xam ne dañuy raxas seen deret ba mu set wecc lépp ngir seen wàllu wér-gu-yaram ay produits yoo xam ne ku koy jëfandikoo doo gaaw màggat foo toll da ngay ànd ko wér ak ko cawarte ñi amee feebaru xel dina farm am na ci ñoom pexe wala nga doon góor ba noppi néew kàttan ci wàllu sëy am nañ ci yow pexe bu ngeen alimentaire bu jaar yoon emploi bi leen neex dina farmu am na produit ya produit cosmétique yi seen yaram gën a soxla yi gën ci seen yaram jàngoro yi gën a sonal nit ñi yu ci mel ne diabète hémorroïdes asthme tension prostate ulcère sinusite AVC paralysie yax yu metti di ruux di arthrose nerf sciatique ak yeneen yi feebar ci gàttal képp ku bëgg ak wér ci sa yaram képp ku bëgg a defar sa yaram dina farm moo yor solution